sheytaani irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokk bokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi sivre Capa TV wala TV kappa ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ak fépp foo xam ne suñu baat àgg na fa wala suñu image àgg na fo ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara li waral nag ñu toog fii tey di def bande annonce bi waaye daara ji ngeen xamoon ci kappa ci jumaa ji ñu tuddee woon ko daara abdullahi ibn mas'ud mi nga xam ne dafa siiw ci alquran siiw ci saaba yi siiw ci jamono yonent bi sallallahu alayhi moom lañu ñu duppee daara ji daara ji nag tàmbale woon na jàngale depuis ci jàkk ji fi nekkoon ba yàlla dogal am na ñu bari sax wàcce nañ fi alquran am na ñeneen ñoo xam ne demoon nañu ba waaj a wàcc yàlla dogal nag ñu toj jumaa ji toj tojaale daara ji mu am rupture nag ndax corona bi jaar na fi liggéey daara ji jaar na fi fa tabaarakallahu ci kattanu yàlla liggéey bi pare ñu def cinquième édition bi édition bi dafa war a am incha allahu le 4 juin dimanche le 4 juin incha allahu fii ci bayal bii nga xam ne moom lañu ñu jullee fii ci Ankapa su ko defee rek ñu ngi ñaan ñëpp képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu baat wala nga gis suñu image wala nga dégg nga gis suñuy lettre ñu ngi lay invité ci bés boobu mooy bésu tari alquran mooy xale yi di tari alquran Euh, mu nekk sax seen feet muy feeta daara ji waaw feeta annuel daara ji kon su ko defee ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne def nga ci sa xel wala sa loxo wala sa xalaat ñu ñaan yàlla yàlla na la yàlla fay fa tabarakallahu gis ngeen daara ji fa tabarakallahu organisation boo xam ne suñu euh, suñ jouru conférence bi danañ ko indi ñu wax leen ni ñu fas yéene daara ji soppi xar kanam parce que bëgg nañ ko def internat internat boo xam ne euh, ñi nga xam ne dañu dañu sore nga xam ne ñu fayee ñu yendu fi nga xam ne soo ñëwee indi fi sa doom mu xëy si balaa nga koy yóbbu rek mu nekk guddi nga ñëw jël sa sa doom wala ay sept yooyu nga jël si waat sa doom ba ëllëg loolu itam bokk na ci yi ñu bëgg a programmer incha allahu kon ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di woo ñëpp ci journée boobu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.